rek tabaski bu fi kenn yónnee xaalisu tabaski xaalisu xotteeg xaalisu marakis taluñu ko dañuy xeex réew mi moo war a moom boppam taluñu ay tabaski taluñu ay xareki ay bëy bu fi kenn yónnee xaalis diaspora bi naan da ngeen yónnee kër ñu jënd ay xareki ay ay nat ak i ak i ak i ñaw ay yére taluñu ko téye seen xaalis def ko ci mobilisation yi def ko ci xeex bi def ko ci cocktail molotov yi def ko ci euh, transport yi def ko ci lekk geeg dund gi def ko ci jëmtuwaay yi nga xam ne mooy tax ñu mën a am ndam ba réew mi dellu si ci jàmm dellu si ci ay loxo yu jub dellu si ci liggéey dellu si ci moom boppam ñuy soog tal ay tabaski taluñu tabaski nañu jóg ñu ñëpp taxaw tey jii ci dimanche bi ñu jóg taxaw dem dajji barrière yu Macky Sall yële ak Antoine Diom génne Ousmane Sonko mu wax ak sénégalais yi ñu xeex suñu xeex jële fi Macky Sall nu mu gën a lii may wax ji amul leneen te ñu bàyyi tappale yi bàyyi toog bi bàyyi taaxarlu bi bàyyi xaar bi bàyyi wax ju bari jéeg bàyyi ku nekk di wax nañu génn dem daj ji barrières yi xeex ak ñoom ñu rey ñu wala ñu rey leen parce que ay dogal yoo xam ne c'est pas légal teguwul ci benn yoon aw askan day jóg da dindi ko yoon amatul ci réew mi yëfu maa tey la comme ñoom li leen neex la def ñun nañ jog def li ñu bëgg ku nekk def li la neex parce loolu loolu la fi Macky Sall toog ci bopp réew mi di def lu ko neex te waroon di def li yoon santaane ngay def li la neex boo defee li la neex askan wi jóg def li ko neex te li neex askan wi mooy génne Ousmane Sonko foofu ñu ko tëj te tegul ci yoon mu mën a dem mën a dikk moom ak njabootam mi ngi bëgg a yàgg nag seetaan baa ngi bëgg a yàgg nañu jóg génn suñu ay cocktail ma la toof xeex ak ñoom di wax na kii di maître Ngagne Demba bi nga xam ne gannaaw ba mu tontoo Ismaïla Madior Fall ministre bi toog di fen indi ay leeral yu leer nañ wax yu leer ju ñëpp mën dégg ci ay fen yu ñuy fen naka jekk noonu la mas a def ñoom ñëpp saa suñu fenee suba teel bu yor yor ñu dajji fen yi loolu moom yàlla baaxe nañu ba ñun ñuy xeex ñun am nañu xam-xam aku fit ak dëgg goo xam ne duñu fi nekk di wër-wër la lu ngeen fi fen ñu fenni lu ngeen fi daaj ñu dajji ko waaw moom jàmm kenn du ko am ci réew mi ci ay fen seen fen yii ngeen bëgg a lala réew mi moom kenn du fi amati jàmm ndax fen yi ci lañ judd màgg ci ñun ñii di wax ak yéen ci ay fen ngeen ñu jure yéen bàyyi ak nday yi fen yi ci ay fen lañu màgg jur ci ba yàlla duppi suñu xel yi roof ñu fit jàngal ñu ñu xam ñu am fit bëgg réew mi nag yàlla duñu xamal nag ñu xeexloo seen fen yëpp la daaj yéen mag ñi ay ci ay fen ngeen juree seen doom yi doom yi nag la yàlla yàlla buy xeex ak yow yàgg naa leen ko wax yàlla buy xeex yow dem uti ku koy xeex la fële yàlla bu lay duma ci sa biir njaboot lay jukkee ki lay duma yàlla bu lay dóor ci sa biir njaboot lay jëlee ñi day jël sa njaboot wëlbati leen ñu di la noonu la yàlla di xeexee waaw naa ko wax yàlla buy fayontoog yow du jëli waxambaane fële na ko kaay dóoral ma diw déedéet hmm. kon kon du nekk yàlla doom ji nga jur yow sa doom moom la yàlla jël wëlbati ko mu di la duma yow sa doom di la noonu la yàlla yi fa yow te loolu moo xew bu ngeen gisee njaboot gi jóg taxaw temm fas lee fas lee nee takk ba ngeen na kodd yéen waajur jur yéen ndax lu fi xew yéen yéen a ànd ak Macky Sall yéen ak paa yeeg maire yéen lu fi xew ci réew mi yéen seen doom yi nag ñoo fippu bari na ñu may déglu ci yen ñu ci bari ci may déglu muñ leen seen doomi dara ndax seen doomi gëmatuñ leen ndax tappale yi ngeen nekk yéen ñu ci bari bu ngeen ànd ak Macky Sall wala ngeen ànd sëriñ bi seen doomi ànd ñoo Macky Sall ànd ñoo sëriñ bi dëgg lañu àndal da ngeen wax jëm fii seen doomi wax jëm fee yéen ñu bari yéen a ngi may déglu li ngeen bëgg ak li seen doomi bëgg bokkuñu ndax da ngeen a sacrifier seen doomi da ngeen leen a sàggane toppatoo wuñ leen doomi dem ba màgg xam dëgg yàlla ànd ak ñoom ñu ëpp ci réew mi ëpp fit am doole nekk ay ndaw ñun ñëpp ñu ànd noonu nasu na benn kurus mën leen ci ñun dara da ngeen ànd ñun ci xeex bi par force wala bu ñu gañee xeex bi takk leen ba ngeen na code yéen ñëpp fusiller leen ay bal tel tel suuli leen amu leen njariñ du ngeen dara complot ak i fen ci ngeen ñu juree complot ak i ak nappaaje képp nappaaje képp ci ngeen juree gone yi ba gone yi fees dell ci mbedd yi jóg di xeex ngeen ne kenn du fa xeex jàmm lii ak i fen neen jeex na takk ngañ dee man nag il est courageux il est pertinent il est excellent dans son il faut l'encourager, il faut le féliciter, il faut aussi le mettre en avant ñu koy bàyyi muy dem ci plateau yi di wax macha allah te affectation mooy li gën a ndaw ci li ñuy xeex yàgg wax gis na ku nekk di ci wax nan wa Matam nan bu ngañ de ba ñëwee kenn ko nekk sen tàppale yoy ngeen di bàyyi yéen waa Matam il faut ngeen arrêté dafa bari nak ñu nekk ci projet bi ñu ci bari ñoo xam ne ay kat lañ ay jafandu ci mbay seen tappale yi il faut l'arrêter naan ngañ dem ba na ñëw maatam su ñëwee maatam ñu am su ñëwee maatam lan la ngañ dem ba di def si maatam bu fa ñëwee te loo xam ne mënu leen koon def avant mu fay ñëw lan la fa mën a def lu leen mënut def jéemu leen dara yéen waa maatam toog di jafandu ak di profité ci ay nit ku am courage nit ku am pertinence am nit ku am xam-xamam nit ko am dëggoom ak fitam taxaw di ko wax ba Sénégal gépp di ko dégg ñu xëy affecté ko maatam yéen waa maatam làppato yee ngeen toog naan waaw dikkal Matam maa la jox logement bilaay boo ñëwee Matam Matam dana taxaw Matam mosuñoo xeex ba ngeen xeex du duñu voté ba ngeen voté opposition bi maatam yéen nga ca ginnaaw Matam yéen mos yéen ku pouvoir doo ngeen àndal pouvoir yéen waa Matam xeexu leen defu leen dara léegi ngañ dem ba ngeen xaar mu ñëw Matam xeexal leen lii nag mooy mbiru làppatu yéen waa Matam dama leen koy wax wax ju du neex kon bu len ñu fonto nan ngañ jemba la ñuy xaar bu ñëwee matam lii matam la yeen matam musu leen xex xexu xeexu leen defu leen dara Macky Sall ngeen àndal mu ngeen di 80% ngeen ko joxal kenn genn gisuma fa kenn ku genn taxaw deugal bopam amuf ngañ jemba nak du ngeen ko sacrifier hein ah. yeen wa matam da ngeen sacrifier Ousmane Sonko bëgg sacrifier ngañ jemba ngañ jemba lankal suma nekkon sa place man ngañ jemba limay def mom la lay wax la ngay def nag yow yaa ko xam mais man su ma nekkoon sa place yi man yow Ngagne Demba Touré man Akhenaton su ma nekkoon sa place lii Ismaïla Madior Fall jël muy dogal bu jëm ci man te muy affectation yi su ma nekkoon sa place lii may def laa lay wax su ma nekkoon sa place mooy duma dem Matam fenn laa demul damay def désobéissance civique comme ni ko Ousmane Sonko wootee déw ma fenn ndax ay tappale la teguwul ci lenn lu dul jaay doole c'est une décision administrative politique bu tegul fenn lul di politiser l' administration dama koy contester ba fu mu yem neex dewuma su ma nekkoon sa place loolu laa def damay désobéir comme ni ko Ousmane Sonko wootee ndax désobéissance bi nag Ousmane Sonko rek ko defagul de kenn defagu ko moom la ñu woo tribunal mun a dewuma lii lu ñu ko woo mun a dewuma defuma moom képp mooy lànk gisaguma kenn ci Pastef na ku désobéir xanaa le les femmes di di bois sacré dañ leen takkal ay ay ay ay ay ay ay bracelet électronique ñu taxaw lànk na ñoom kenn leen takkal bracelet ay góor lañu ñoom duñu ay jaam ñoom ay ñu am dignité lañ les femmes ñu taxaw lànk na duñu takk lam yi bracelet yi ñooñu ñu ngi désobéir man ñooñu dama am fierté ci ñooñu parce que xeex bi tamit dañ koy ñemee quoi li ñuy wax dañ koy wuyu waaye daan ay don de soi dajale xaalis folklore ku nekk ne massification bu ñu nee ciix sa fit wi ne res amoo fit li ñuy xeex fit a koy maye ku ci amul fit bokkoo ci ngañ dem ba Touré bul dem fenn xol ba xam fu muy mujj est-ce qu'ils vont suspendre ton salaire wala dañ lay raje wala dañ lay dàq ñu xol ba xam fu muy mujj na la ko lépp jaral lu dul dëgg dañ koy xeex dëgg kenn du ko woy du dëgg waaye damay dem déedéet Ousmane Sonko jàngal nañu lépp lu dul dëgg xeex leen ko te moñu ko mujj jàngal dëgg ay fen dañ koy xeex ay tapale dañ koy xeex ak lum la mën a coûter salaire rek poste ak yëpp taxawal fi nga taxaw tant que amuñu détermination tooñ gi ñuy tooñ ñu teg ci suñu bakkan teg ci ñàkk suñu ay poste ñu dàq ñoo yëpp tant que jaraluñu ko ñu am dam ci li ñu bëgg li ñu bëgg il faut que mu jaral ñu salaire jaral ñu jigéen joo xam ne dañ koo takk ba ànd la ñu ci xeex bi ko fase mu ñu bikka ndey jaral ñu suñu bakkan yi ñu takk xeex bi ñuy xeex ay mag ak rakk ki papa ki jigéen yu ñu nappaaje xeex bi moo féete kaw loolu lépp ku ku ci ku ci mënta ànd ci ñun dañ ko sànni ci àll ay salaire ki ay affectation ki yéen li ñuy xeex xam ngeen lu mu doon est-ce xam ngeen li ñuy xeex lu mu doon li ñuy xeex moo féete kaw ay jabara ki ay dooma ay salaire ay poste ki ay sëriña ki ay yu kenn xamut li ñuy xeex mooy njariñu Sénégal gu ëllëg Sénégal gu baax ba faw kenn du ko caaxaane suñu bakkan bi lañ ci teg lu ñu ciy ñàkk rek waaw ku mën a ñàkk sa bakkan ci xeex bi asuma laak ab poste affectation ki salaire nit ñaa ngi dee ci xeex bi dëdd ci bàmmeel yi ngeen wax ay waxi salaire ay poste ay affectation su fekkente ne xeex bi jaraluñu ay poste yuñ ci ñàkk te Ousmane Sonko ñàkk ko ci su fekkente ne xeex bi jaraluñu ay tuuma yu bon ak wax ju salte te Sonko dund ko su fekkente ne xeex bi jaraluñu ñu tëj ñu suñu kër yi wala ñu dugal ñu ci kaso bi te Ousmane Sonko dund ko bu fekkente ne xeex bu fekkente ne xeex kon ñun dañuy nax Ousmane Sonko dañuy nax Sénégal dañuy nax projet bi gëmuñu ko. Sénégal mag Mountakha Mbacké. moo te kaw Mbaye Sy Mansour képp kuy dund ci réew mi Sénégal la mag Ousmane Sonko mii ñu topp sax Sénégal la ko féete kaw ci réew mi il faut ngeen xam loolu bu ñu ànd moon moom mooy yëkkati gi mu bëgg a lañ ko toppee waaye du jëmmi Ousmane Sonko képp Sénégal la féete kaw Mountakha Mbacké féete kaw Mbaye Sy Mansour kuy yeewu ci réew mi Sénégal la féete kaw ndax kenn ku nekk ci ñun daga dee bàyyi fi Sénégal ñun ñëpp daañu dee bàyyi fi Sénégal Sénégal moom motul dee te ko bokk kon buñ ci mënee teg suñu bakkan warte mën a ñàkk ay poste ak ay affectation ngañ Demba Touré bu ma nekkoon sa place fenn laa demul damay désobéir taxaw dëggal sama bopp parce que ay tappale la lu ma ci ak lu may coûter jaral na ma ko désobéissance Ousmane Sonko woote na ko kenn fekk ko ci moom képp moo koy def ana waa Pastef ana ñi toog di wax ci micro yi dafa yomb wax ji wax wax wax ba géex c'est facile waaye nag xaa dëggal sa bopp comme ni ko président Ousmane Sonko koy defee looloo jafe eh. ana ngeen leen comme ni ko les femmes du bois sacré defee deret du réer lu tax waa Casamance di bañ kenn du leen takk jaam lu tax waaye boo ñëwee ci noor bi ku ne nga takk jaam takk lu tax lu tax waa Casamance ñoom kenn du takk jaam taw noor bi koo jàpp def jaam lu tax ci deret la deret lànk lànk leen laa wax amul dogal bu fi ministre di jëlati police gendarmerie Macky Sall dogal bu ñu fi jëlati topp ñu ko nañu lànk dogal yëpp parce que ñam amatuñu légitimité amatuñu légalité ñàkk nañ lépp te loolu ñoom ñoo ko indi ci ñoo indi ay nervi jënd ay fetal di commandé seeni arme présidence di rey nit ñi amatuñu légitimité amatuñu légalité ils ont la l'anarchie dans ce pays donc ordre amatu fi droit amatu fi loi amatu fi on va désobéir seen acte yëpp la ñuy sànni ci àll ba on ne suit aucun acte gat sa gat Ndiaye takk na bracelet waaye femme bois sacré yi ñoo ko man El Malick Ndiaye bi yor communication Pastef jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi bois sacré ñoo ko fit ñu nañ ko ñun takkuñu bracelet dañoo loolu moy jigenu Casamance loolu moy alin situ wo deret dere durir man kajoor kajoor la njàmbur njàmbur la bol bol la waye wa Casamance la xamna len bu bax ma juddo ci sen biir magge sen bir kenn du len war dañu am dignité jigenu Casamance mo upp dignité goru nord bi nord ci ki nek ci nord bi bawol bawol bekkal ko jigenu Casamance be ko fit day taxaw lank pourquoi ngay tak ay bracelet damay lank tuddi ki naaj Ousmane Sonko ko woote du ma ko def waa mata moom ñoom ay làppato lañ Matam moom man dama leen a boolul dara mosuñoo xeex ay làppato lañ Valeu, manda uma di lirico mantieri. kon na ku ne xam ne lii xeex du caaxaan du luy mën a luy yendal luy xaar amuñu xaar Macky na tak mandaam bii mu yore wut jeex li mu def ci réew mi ci ay tuuri li mu def li mu rey ci ay nit munta muusaka maccaat ba génn ci fi may daal